santula war na jambi alhamdulillah suñu tollu di la ñaan rabbi alhamdulillah santula war na jambi alhamdulillah alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokki jullit yi ñi ngi leen di nuyu waaye nuyoo bu ànd mbégte mu jóge ca borom ba subhaanahu wa taala ginnaaw bu ñu delloo ci moom wékkoon ko suñuy mbir diis ko lépp loo xamante ne bii ñi ngi ko doon sàkku ci li nga xam ne moom lañ doon woote muy suñu mbokk suñu mag suñu xarit suñu soppee Seyda Ndeye Fatou Fall ñu ne nan leen jog ñun julit yépp jëm ci moom dajaleel ko li nga xam ne moom moo koy saafara yal na saafara borom bi jiitu ndax ndimbalal borom bi moo jiitu ndax lii kat mënoon nañ ko sakk ñun julit yépp te duñ ko am ci nu ñu ko bëggee waaye suñu borom may nañu ko ci ni ñu ko bëggee woon waaye may ñu ko ci ñu kawe suñu njort ndaxte kat 6 million rek lañ waxoon ne moom moo koy faj incha allahu suñu borom may ñu douze millions cinq cent yoo xam ne julliit yi dajale nañ ko fa diggante bërki démb ak démb ñuy yëgal ne la ñu doon laaj kat mat na moo tax dañoo ñëw ngir tëj woowu yoon di wax ne yoon woowu tëj nañ ko tey jii incha képp koo xamante ne am nga yéene mën nga yëggale sa yéene waaye ñi doon laaj tëj nañ lii di yoon woowu incha allahu ñi ngi ñaan ñépp ñu ñaanal Seyda Ndeye Fatou mu yàlla defal ko jàmm ak salaam ñi ngi sant nag mbooleem jullit yi nekk ci Sénégal gépp waaye mbooleem yi nekk ci diaspora bi yëpp waaye mbooleem fu jullit nekk rek ña ngi koy sant di santaale ñi nga xam ne ñoo ci doon taxawu ñoom ñëpp def ci seen alal jóg ngir seydaa yëg na lépp xam na tey jii taxawaayam ci yoon wi xam na ni mu toll ci nit ñi ndax lii lu jafe la ñaari fan liñ doon sàkku lépp daal di saafarawu moom kenn la ci yoonu lislaam yal na ko yàlla saafara te saafara mbooleem jullit yal na yàlla fay ñépp yal na ñu am ndimbalal borom bi waaye am ngërëmam fii ci àdduna ak àllaaxira asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.